waaw euh, FERA structure la boo xam état du Sénégal moo ko créé euh, mu dépendre ci ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement te monsieur Mansour Faye euh, di ko jiite mooy ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement donc état bi mu créé FERA daf ko sas ay mission mission yooyu mooy mobiliser ay financement maanaam wuti xaalis boo xam ne euh, dañ ko consacré euh, ci entretien routier manam defar yi nga xamné dañoo pour que euh, route yi nga xamné manam tali nga xamné patrimoine la pour réewu Sénégal ñu mën ko sauvegarder parce que tabax tali dafa laajte investissement yu yu yu 10 à 10 donc bo investir lu bëri bëri il faut aussi nga def nga nga tégg à côté politique boo xam ne dina tax euh, li nga tabax du gaaw a yàqu parce que boo bayee tali ba mu yàqu ba nga war a wutiwaat xaalis pour euh, tabaxaat ko mu beesaat euh, day laajte investissement yu rëy rëy moo tax état bi sant ñu ñuy financer Ageroute pour route yi nga xam ne état moo leen moom muy réseau classé bi pour Ageroute toppatoo tali yooyu mais ci financement FERA léegi pour euh, tali nga xamné bokku ñu ci réseau classé bi euh, communes ñoko ñokoy saytu ñoko mom té te commune Sénégal ku ne xam na ne euh, seen budget des fois du moté pour que ñu mëna topoto toppatoo fonctionnement ba paré investir ci ent ci défarat tali motax état bi ne ñu ni ngeen di financer Ageroute pour mu def entretien route classé yi il faut que jàppale aussi communes pour que communes mona topato réseau routier donc euh, convention que nous signé euh, importance importance bi projet chef de l'État bi mois de mars passé président dafa décidé ne dafa bëgg a euh, ci qui emplois ci emplois mu xool ne entretien routier mon na ci euh, bokk parce que dans toutes les communes de communes du Sénégal yépp fo dem euh, amna ay tali té tali yoyu soxla nañu défarat donc euh, euh motax euh, ci programme euh, président def ñu jox benn quota bo xamné ñun ñoko ko war ci commune yi commune du Sénégal yépp nag amul xajak sen Tay Sandiara la dem ba ay malikunda yeneen commune yu nekk ci département de Mbour pratiquement mën naa ne tey bu Sandiara signé euh, yaakaar naa ñaari commune xëy na ñooy des ci département de Mbour yoo xam ne euh, amuñu convention ak FERA muy commune u Sessène euh, ak commune u Joal su ma juumulee ñaari commune yooyu bëgg nañu ci fan yi di ñëw nous euh, mën euh, le calo ak maire yooyu pour ñu ñëw pour que FERA mën a dans toutes les communes du département de Mbour. waaw tey euh, bi ñu le point parce ñun président lim ñu sant mooy jeune Sénégal yëpp nañ leen traité avec équité équité sociale équité territoriale manam du am xaaj sen euh tay buñu signé ak pratiquement war nañu signer ak CSN par euh, coûte que coûte parce que jeune Sandiara ni ñu amee droit am xey non la jeune jeune su CSN amé droit pour am xey non la jeune su Joal amé droit pour am xey motax euh président lim ñu sante moy bu len favoriser benn région bu len favoriser benn ville bu len favoriser benn département mais projet bi na dem fep ci Sénégal euh bo démé tay ci région yi gëna a reculé comme ay région de Kédougou euh, wala nga dem ay département yu melni ni Oussouye euh, wala côté Rosso Sénégal amul foy dem ci Sénégal tay tay gisoo euh, jeunesse bo xam mais ci commune yi ñoo leen recruter FERA di leen fay salaire chaque weer tay en terme de projet bi globalement mën naa pour cette année ah, boo ñu xoolee début d'année ba légui Euh, dinañ ci dugal lu mot euh, sept autour de sept huit milliards pour pour année bi mais l' année prochaine euh, ak nga xam ne toutes les communes am nañ déjà ay convention projet bi dina dina yóbbu budget bu toll ni douze milliards pour déwén rien que pour wutal xëy ay ndawu Sénégal ay xëy tey ñi amagum xëy mot nañu fukki junni ak juróom téeméer fukki quinze mille jeunes Euh, par semaine passée, nous avons 14 500. Mais si nous avons le point cette semaine, dans la commune de Desson, nous avons 15 000 jeunes qui ont Nous avons ligué dans la commune du Sénégal, ils ont de salaires. salaire. Pratiquement, nous avons versé masse salariale, de 1 milliard euh, pour toutes les Sénégal, euh, communes du Sénégal. Si nous avons fait ce nous avons fait masse salariale, euh, nous milliard. Ce que fait mairie, mooy ñu xam ne euh, tali euh, dafa dafa euh, dafa jar ñoom ñëpp ñu xar seen tànk tubéy fonk ko parce que booy xool tant que amoo tali yu baax mënoo am développement boo amee enclavement dëkk bu bu enclavé mu du mën a am développement te état aussi financement état dafa bëri yoo xam ne yëpp ci boppam la la nekk Euh, donc projet yu mel euh, day tax euh, maire yi am ben outil bo xam même bu état ñewagul pour def euh, maintenance lourde euh, indi ay engins recruter entreprise mu indi ay engins dina tax entreprise à tout moment maire yi dinañ mëna defal sen bop entretien té lolu lu am solo la parce que booy xool tey Sénégal patrimoine bi mu am bu gëna a tay moy euh, le réseau routier réseau routier Sénégal boo jëlee euh, ligne réseau routier classé bi boole kook réseau routier euh, non classé bi nga xamné ne commune yee ko mom ak bi état bi mom bo len dajalé tay moy comme comme bi état am bu gëna bu gëna reuy donc lu mel noonu mëno ko bay bañ ko saytu bañ ko entretenir ba mu yàqu te ku ne xam na ne tali bu demee ba yàqu presque day paralyser économie